vous nous avez déçus. L'homosexualité n'est pas tolérée ici. Pour trois raisons. Juriste nga xam nga ne l'article 319 c'est pas tombé du ciel. député yi ñoo daje de manière souveraine nationale voté ko même des sanctions qui sont prévues qui peuvent aller d'une amende de deux cent mille francs à a des peines privatives de liberté qui sont prévues. qui peuvent aller de un mois de prison à cinq ans article 319 alinéa 3 alinéa 2 du du code euh, électoral nga naan c'est toléré c'est pas toléré parce que article boobu la ñu appliqué ba le 25 décembre 2015 ñu ngi gërëm le commissaire Bokar Ly mu am une vingtaine de góor jigéen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 leaderu Saafinatul Amaan dafa dem action bu rafet à Touba daw jéeg comme ni mu ko baaxoo def chaque veille yu màggal au équipe ba yi pour ñu def set setal mu dem dans tous les coins et jigéen ñiy jaay seen bopp ak jaaykatu xeesal yeeg jaaykatu cigarette yeeg confisqué marchandise yeeg ñu signalé ko nekk am na appartement bu am ay góor jigéen yu fa nekk di recevoir ay góor.